Ah, ba mais à l'aller ah. bu poche yi feesee ah. nga jàdd si ñoom. jàdd voilà le mal. et nos autorités doivent mais ñun li ñu wax ne autorités ñoo gën a xam mais il se trouve que léglé ñu ñun ñu ñu nommé Baye Assane mu nekk complexe. bu waree dem France wala je ne sais pas où qu'est-ce qu'il fait non dama war a voyager xam nga on a di trucs affaire bu demee voyage ba il est plus préoccupé par le voyage que le fond du voyage. te dañ ko dund ak ay autorités bu diggante xulil. boo demoon diggante Élysée la ñu nekk Champs-Élysées di traîner euh, George V boo xefee ñu ne la non non booy dama jaar huitième arrondissement je dois avoir des amis <laughs> mais le mal est profond donc il faut que tey ñu wax suñu ay autorités ñoom ñi nga xam li ñuy wax ñoo gën a xam ne la am France nu munti toll ci àdduna Sénégal lañ ko jëlee Mali lañ ko jëlee Burkina lañ ko jëlee Niger lañ ko jëlee ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen à un moment donné. Mm. pourquoi les Nigériens se sont révoltés tu as un taux d'électrification de 14,7 pour cent. à un moment donné. Mm. moment boobu ñu ne la Niger courant moom luxe la. Nigéria di leen jox courant. au même moment. uranium bi jóge biir Niger. Areva di ko gàddu non di yóbbu France muy éliminer Europe. loolu loolu c'est quoi. non vraiment. léegi ñu taxaw tey ne léegi France dégagé non ñu ne léegi africains yi France naan waa CEDEAO yéen africains yi dem leen ngeen wax ñooñu ñu ñëwaat. mais, mais mais donc tu donnes raison à ces pays là du Sahel yi nga xamante ni dañu jógee CEDEAO dem euh, ne dañuy defar seen kuréelu bopp AES parfaitement les alliés des États du Sahel mais parfaitement sëñ bi tey jii nii j'ai mal quand j'entends une partie de la presse africaine panafricaniste quand j'entends les forums et plateformes de nos compatriotes africains li ñoo wax ci ñun ak Sénégal waaw c'est que ah, ah, Sénégal ah. vraiment attaqué ci mais mais mais terrible ci ci mbirum CEDEAO rek. mais tey jii nii par exemple on peut comprendre le président la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui vient d'arriver. Hmm. qui s'installe mais xoolal may ñu tubaab bi may ñu ko sax mu installé se sont précipités. pour que rapidement mu dem seeti Ouattara rapidement mu dem France. Hmm. ñu trouver les prétextes. Hmm. bàyyi force pour jox ko ay info la vérité c'est ça mu neex ñu mu naqari ñu c'est comme ça. bàyyi force parce que danay wër ndomb que muy muy jël taawam bañ a dem France plus ñoom ñuy nekk ci jafe-jafe mais dès lors que teg dafa tànk gis nga déjeuner boobu ñuy wax de travail diggante moom Macron. après da ngay toog yaa nga ne mais Gavi c'était le prétexte. waaw c'était juste le prétexte pour voir Macron. Mhm. alors que ñun nous n'avons pas besoin de ces bu ñu ko waxee ñu ne ñu non booy xamu leen li ne ci mbiru état. waaw y a rien d'extraordinaire si sa nekk tubaab yi. Mhm. bu ñu àndul ak ñoom ñu jaxase Sénégal. léegi nag yow li ngaa ragal mooy damay bañ ñu jaxase Sénégal damay bañ ñu ay attentat mhm. damay ñu ñu taal fi ay affaire damay bañ ñu yàq fi dara ak dara comme ni ñu defoon Guinée ak feneen ak feneen ak feneen mhm. nous sommes en 2024 la meilleure et plus grande sécurité pour ce pays là c'est l'information sincère il faut dire à tes populations sénégalaises mhm. ne leen lii moo de dëgg bi lii moo fi ne nan la ñuy def population yi ne la ñu ngi sa wet ñu génn ci mbedd mi gàddu suñu ay pancarte bu jaree toog une semaine dix jour quinze jour mu kaa toog ci dëkk yi. dem toog buntu ambassade France Sénégal yëpp dem toog fa. dem toog buntu armée française seen seen yore ay dañu bëgg ngeen génn dëkk bi comme les Nigériens loo fait. Mm. pourquoi parce que quand quelqu'un comme ça refuse de te donner ton cadastre minier bi nga yore. vraiment te moom mu ne sa partenaire la. kooku su la nee dinaa la dimbali nga développé wu xam nga ne waxul dëgg. waxul waxul day wax lu ko def soo continuer moom dina la rey. donc li gën c'est quoi. c'est de t'affirmer xam nga secrétaire d'État bu Niger. Mm-hmm. bu États-Unis dafa jékki-jékki débarquer Niger sans ñu avertir xam nga ñoom dañu am doole. Mm-hmm. ils ont leur base américaine la bas la dame elle vient ne by force dafa war a gis Abdourahmane Tiani. ah teg ko ci lan. gars yi ne ko non mënoo ko gis ministre bi moo lay recevoir mu dem toog ministre bi ministre ne ko bon soxna si yow déjà yéen da ngeen ñëw débarque suñu dëkk parce que vous avez votre base ici. Mm-hmm. vous faites ce que vous voulez mais vous la dame insisté ñàngal woote Amérique ñu def seen protocole yooyu ñàngal quoi jaay doole mm. waaye dina ministre bi ne ko non booy baa baax et puis d'ailleurs sax bi ñu insister au bout d'une semaine qu'est-ce que le Niger fait ne leen maintenant on veut que yéen seen base bi ngeen jóge fi da ngeen fi am yëpp ngeen jël ko ngeen jóge fi moment bi ñuy def loolu qu'est-ce que le, le Niger fait le Niger précipite anticipe précipite précipite finalisé ak la Russie c'est parce que la Russie est kii que américains yi gàddu seen ay bagages génn ndànk américains yi à la différence des français ñoom ñoo gën a honnête. dañoo gàddu seen ay bagages dem. tranquillement sans bruit parce que xam nañ ni ñii ils sont décidés ay souverains population bi dafa ànd ak ñoom peuple bi taxaw ñu jël seen bagage dem français yi ne dee duñu dem il a fallu peuple bi insister autorité insister les informateurs insister information bi pour que ñu dem malgré eux parce que lan. ils achetaient le kilo de l'uranium à 4000 francs. Ah pendant oui. que le Niger a récupéré son uranium il le vend à 137 000 le kilo donc France. ah daf ñoo soxla. waa kii la soxla mën na mën naa toog sa bopp. di la jaay affaire. naan la du ma la jox sa cadastre minier yow nga bëgg a continuer ak moom mu laa sant ngay dox CEDEAO naan damay dem jëli keneen ak keneen moo tax le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye noo ko wax fii. Hmm. yàlla na ko yàlla kàttanal mu génn si loolu. et on mais la position du Sénégal ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre pays yi nga xam ne dañu bëgg a dem jógee CEDEAO ak CEDEAO ak rôle bi mu ci war a jouer est-ce qu'il n'est pas vraiment ci situation bu inconfortable pour moom. Euh, le président est dans une position très difficile. Mmh. mais warul nangu ñu dugal ko ci. mais naka la koy bañee. d'autant plus que mais, le Sénégal est membre de CEDEAO. waaw même si je suis membre. mais bañ bañ lan la nangu la ak bañ. waaw mu li ngeen bëgg ma def ko ma ko. et puis bañ bañ mu ngi neexee bi nga mën a nangu le Sénégal je suis bien avec ces gens comme avec vous. puisque yéen noon ngeen ko gisee yéen gérer leen ko mais man mënuma def loolu. qu'est-ce que la CEDEAO a fait en premier. bloquer le Mali bloquer le Niger bloquer le Burkina. c'était même pas intelligent parce que lan injonction française tubaab mi ñoo leen di sant ngeen di def. bloquer leen diw bloquer leen diw bloquer leen diw sant beneen ne ko bloquer pipeline u Niger. Bénin au mu réfléchir ci possibilité bi moom ak Niger non il préfère milliards yi ko di jox ba pare di ko jëlaat ci moom non mu bloqué pipeline bi Patrice Talon hmm. après après tu te poses la question nga ne mii mais africain ban façon nit la comment les africains réfléchissent-ils dire que tu vas avoir un africain la dernière fois je discutais avec quelqu'un qui me dit pas il faut avoir arrêté tes idées arrêtez là tu es trop parano ma ne hmm. ko par rapport à parce que damay wax tubaab mu ne non mais arrêtez et puis tu nous ma xool waa ji ma ne mais kii la mu jàng ak la mu xam man xamuma ko jànguma ko ma ne kii boroom xam-xam la. mais gars dañ ko formaté alors. exactly <laughs> c'est ça s'appelle l'assimilation culturelle. benn ñaareel ba lan ko jàngal nañ ko ko jàngalee fañ ko dugal ak la mu caa am. parfois hmm. aussi nit am xam-xam malhonnête. parce que intérêt c'est toujours moom nekk aux côté de la France am na ci ay business tey jii nii ki am 1 pour cent wala 2 pour cent wala 3 pour cent parce que indi na fi Auchan wala keneen ak keneen kooku boo day wax jëlee fi Auchan wala jëlee fi tubaab du ko arrangé léegi nag au Sénégal on n'a pas la culture du nous on na la culture du mois mm, Ouais. et dans la culture du moi civisme du taxaw avancement du nekk c'est toujours